ziyaara leen ndokkeel leen nuyu doomam yu baax yi ziyaara leen ndokkeel leen nuyu imam Cheikh Sidi Amar mi imaamu ratib bu Ndiassane ñaanal ko mu yàgg fi lool te wér moom ak ay nawaayiba waaye nuyu ki yor baatam di Cheikh Papa Abdourahmane naati ko rasmel xawma Cheikh Papa Abdourahmane di porte parole de la famille ma nuyu doomam Cheikh Ibrahim moom xalifa bi nuyu doomam Cheikh Sidi Yahya nuyu doomam Serigne Sidi Maam ak seeni rakk fa tabarakallahu waaye nuyu doomam Serigne Mambu nuyu doomam Cheikh Abdou Khadir Jeylaan lii buñ ci amul woon digal duñ ko def mukk ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér di nuyu nag doomam ji di Cheikh Mouhamadou ak Cheikh Abdou Khadir Jeylaani keroog waxtaan wa ñoo ko seq ñu ànd ci groupe bëgg Cheikh sama kilifa yëpp ngi nii teew Serigne Cheikh Bekkaay ñu ngi lay ziar Serigne Mamadou Khalifa bu Cheikh Bounama Kounta ñu ngi lay Cheikh Daouda Sidibé maa ngi koy ziar di ko ndokkeel moom ak Cheikh Gafa Sidibé di leen ndokkeel waaye di nuyu suma xarit professeur Mamadou Diarra Cheikh Daouda li mu wax démb la bi ma njëkk a def ci rajo 1998 bay bu moo ko jox ndigal ni ko àndal ak Cheikh ngeen dem ca Walfadjri booba Sacré la nekk ñu def émission ba. moo jur premier cassette bi ma njëkk a def pré enregistré ñoo ànd dem dox ko loolu du ma ko fàtte Cheikh Mamadou Diarra professeur ma koy ziar waaye nuyu Cheikh Kafa nuyu fa tabarakallahu El Hadj Togola nuyu mboolem cheikh yi tey damay tënk nuyoo bi nuyu waa jamaatul islamiyatul mutamassikatu bi tariqati alqadriya wa tastadiu bi anwaari xalifati shaabi Muhammad waaye nuyu waa AFCBD les amis fidèles de Cheikh Bou Diop jamaa bi ci turu seen président Makhtar Koné waaye AFCBD ci turu seen présidente soxna Walimata Fofana tey nag damay teg nuyoo ci loxo soxna Aïta Sow mu jottali ma ko mbooleem suma jigéen ñi ñoom laa janoon ñu baax nii suma limee rek dinaa ñëw ma nuyu suma rak moom it di may mun a baax su ni am ba fi yeewoo sopp gi mu ma sopp moo tax kon maa koy nuyu moom itam waaye maa ngi nuyu mboole seen sopp sama yaay yi toog maa ngi leen di ziyaar sama baay yi maa ngi leen di ziyaar suma mag yi maa ngi leen di ziyaar nuyoo jigéen ñi ma koy teg ci loxo bàjjen Damba bintu Cheikh Abdourahmane Pou di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér nuyu suma rakk bu yàgg itam moom ak ñi mu àndal ma kenn waaye nuyu samay goro suma soxna rek lay nuyu mu yóbbaaleel ma leen Abdourahmane suma rak ah, ah, soxnaam dafa ñëw muy soxna Sophie Dia fa tabarakallahu jóge France bokk ak ñoom bis bi ay mbokkam yëpp ñu ngi nii toog jóge ca maa ngi leen di ziyaara yàlla na ngeen am jàmm waaye nuyu waa fans club Baye bu Diop asta jompi yéen xale yi yéen ñëpp maa ngi leen di ziar di kontaan di ñaan balaa mu fay jóge yàlla ñëpp dama bëgg rek ñu xam ni ay taalibe lañu ñu ngi roy bëgg a nekk ci maa ngi nuyu njabootu allah ji ñoogu fal gépp nga xam ni ñoom sag la jumaa ñu taxawal képp ku la ci wóotu nga ko njukkal kon nag ci turu Cheikh Papa Samba Fall ak rakkam Serigne Abdou Kounta Fall ak njabootu Alaaji Njoogu maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ziyaara ngeen bal ma bi may dugg si dama doon joxe un bon exemple ñu ngi may door a gis ci tànt ma takk masque situation oblige ba jël jërëjëf kii de fu mu ma joxe xaalis ma bari xaalis maa la ko wax mooy na def na ma ko ay yoon fekk ma ma taxaw rek mu ni ma am defal lii sa poche fi ma taxaw rek may woo ci bis bi jox ma ay million def na ma ko ay yoon mu ngi nii tey jën yàlla yàlla taxawu la daf may yéem sax yenn saa yi wallahi alazim wallahi def na ma ko ay yoon ma am ci tànk su ma bàjjee la pour te si nam ni béykat dégg naa ci ñëpp su ma waxee lii nag ndax dañ ma artu woon gaa yaa ngi nii toog ñëpp di ma xool nee nañu ma tey jii bëgguñu benn yoon wax man su may wax du ma ko teg ah, ah su ko defee nag way rek lay doon maa ngi kontaan fat doy yow ak Aïda fa tabarakallahu yéen su may rakk ak soxna nen ne maa ngi leen di ziyaar maa ngi bég ci ñëpp képp ku fi teew rek rek maa ngi lay bég maa ngi nuyu njabootu suma maam Mbooje Njaay njabootu day si te Géy fa tabaarakallaahu suma jigéen lay maxtaar teewal pintandoo maa ngi ñaan ci famille bi yàlla na yàlla sàmmal sunu gólle ngeen baal ma nag kenn ku nekk yaa xam noo koy defee waaye lu ma jig la ka nga dendal nga xool noo ma ko nuyoolee te yàlla rek tax te li ko yéene nga yéene ko sa bopp macha allah nuyu xaaji jub fa tabaarakallaahu moom ak xaritam yi mu àndal yëpp loolu su amee Baara Dieng moo tax Baara waxukaay bii ñuy waxe Baara ak mu jot moo ci wuutu te manager groupe bëgg jëmbu ak mu jot moo naan jël naa ko ñii toog ñëpp ku ci ne def alal ñii toog ñëpp la wax ñëpp ku ci ne benn jataay la toog mu mel ni day taw loolu ngor la yéen a bëgg borom Ndiassane na leen yàlla fay ci barke yéen a bëgg borom Ndiassane yàlla fay ci barke kontaan yamuñu ca kenn ku ne danaan lii maa ko def ci bis bi waaye ñëwaat fekk ma kër ga ni ma Cheikh bu Diop lii man ak yow la day am sunu diggante te ku la ko jox day waat manuma koo lim doomu ko tey nit bëgguma koo feneen sama rakk yu baax yi toog groupe bëgg Cheikh Babacar naam moo jékki-jékki rek aalu ci fi ñuy réunion daal ni ku bokk groupe bëgg Cheikh bu laaj la nangam muy taw loolu solo dogu la ngeen baal ma nag bisu sikkar la yàlla nu yàlla fayal góor gi ñu ngi kontaan maa ngi sant sama Cheikh Anta Gaye yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ñu ko teewe maam alaaji maam bu Mamadou yàlla na ko yàlla yërëm Mouhidine Ahmed Bachir mi doon porte na ko yàlla yërëm ak mboole seen ñi nga xamante ni ñoo jiitu tey nag damaa bëgg ñëpp di sikka nuyu Cheikh Pape sa sama mag nuyu mbooleem ashuara du ma leen ko tuddee sax dal maa di xur daa leen di tuddee ولي الله أذكى تعبدي لما هذا من فضل وفحر وسودة ها فنك مدح مدح داي دوغرك ها سيري توبا فلي تدونا شعراء وهي خمون وحوي فن لكو دخي أهل الفصاحة طورا بالسلام مدح مدح وبلا أنت الله أكبر السنة مدح المادحون boole ci ñooñu su ko defee sikkar rek la ku fi teew nuyu naa la sama xol képp koo xamante ni ci kunta nga aju teew xol bi kay jërëjëf kunta si waa ndànk waa sanc buuna waa guyet waa deernaar waa dagg yundum kër maamurloo lat menge cari ak saara gati lu d'accord la ña ca kër di ko def ak ñun dafa gën a yaatu suñu xol bég na gis nga ñi ngi koy def fépp tey ci Sénégal maa ngi ndokkeel fépp fu ñuy defee guddi Cheikh bu waa Mauritanie woo nañ ma ngeen seede ni soxna lan la Aïcha sa papa Abdou Cheikh ak Cheikh Naar mu sama papa Naas ña nga ànd ak waa Mauritanie def seeni bernde ña nga taxaw di def lii su fekkente ni Italie su papa Boubacar

xam ne kay wut a waa bi di mu jot li ñu ko seen gërëm ñu ngi kon